bor ba dafa yàgg. dafa yàgg. te nee na il est le genre du bool te bu ko ci mbër moytu dina fi dóor mbër mu dee. nee na mbër mu dee. dóor kenn day sóob rek. Tapha Tine sóomaan na la. du dóor kenn. Hmm? wax ngeen neex nii rek du dóor kenn. jàpp nga ni bu ngeen dajawaatee la nga amoon ci moom di ko am ak fa nga ko yeggoon di nga ko fa yeggaat la. ci kàttu na yàlla deux lay doonaat rek. mais nag li ngay wax tegoo ko fa. ah na ba booba. comme loola large la am na doole mën na bëri te xanaa man mënu ma bëri xanaa man mënu ma xeex. moom moo bu dool ah xoolal rek xoolal rek. bàyyi am. mënuma ko doole lu leer laa dàqu laa xeexe benn dàqu ma ci benn te ci kàttanu yàlla 2-0 lay doon. 2-0 lay doon mu naqari ko. incha allah bu neexee yàlla 2-0 lay doon. kon loolu dafa mel dafa mer ba tey. question mer xam nga affaire question de lan la. question d' expérience. waaw yaa ko déggalu ma ci kàttanu yàlla 2-0 lay doon. <laughs>